waaye féexal sab xol ah, original neexal bu te am na original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan gi yegsi fay say facture ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam na nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mba sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy taw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 4 l'homme de Boy Niang le sorcier entre guillemets waaw yaa ma gën a xam mais moo tax ma ne entre guillemets mais maa ngi lay bëggee ah di la ndokkalewaat ci bés bi vraiment bi yaakaar mooy ñetteeli at ñoo xamante dañu fiy ñëw ci kër gi te mën na ne man bokk personnellement yaay sama bunt tey fii ci kër gi su ma xamanteek ñoom kànjeek vraiment ak grand Abdou ba xëy na sax ñu bëri bu ñu koy dund sax ah te doo ko yëg sa xëy na mu yëpp mën naa ne vraiment ci sa ci sa ci sa mbaax la ak ci sa barke maa ngi lay waat bu baax sama frère ah di fëtliwaat sama kóllëre rek yow di la naan ndokkale rek ci bés bi. maa ngi lay fay nuyoo bu baax a baax a baax l'enfant chéri de Jaxaaw Siin comme ni wala taamu di woowee di la nuyu bu baax a baax a baax di sant yàlla bu baax macha allah di julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di sant suñu ñaari waajur di sant nag Cheikh Ahmadou Bamba Xaadim Rasul ci li ñuy santaatee yàlla mooy comme ni nga ko waxee woon jàmmal gi mu ñu jàmmal kàttanal ñu may ñu fanu gudd ñu fekkee waat ko tey Boucar ba ñuy nettaliwaat at yi weesu ci ginnaaw loolu ak cant la ñu ciy sant yàlla suñu borom bu baax a baax a baax di delloo njukkal aussi suñu bunt mu suñu yaakaaru tey ak ëllëg muy Cheikh a Bamba Xaadimu nga xam bii bisu tey bi bi mu koy woote moom tamit ak cant moo taxoon ndax lu ko suñu borom defaloon ba mu lott ci sant ko ba woo nit ñi ne kaa leen santale ma ko yow c'est toujours un plaisir ma jàkkaarloo ak yow comme ni nga ko waxee parce que nit nga boo xamante ni dañu côtoyante làmb tax ñu xamante. mais après comme li ñuy wax rek ma gis ci yow ay valeur vraiment nité surtout c'est très important nga nekk quelqu'un très ambitieux ci loolu laa la jàppee quoi yàlla yàlla suñu borom saxal ànd bi vraiment mosul ñu ci saytaane quoi mais tey tamit kontaan naa naa trop ci jàkkaarloo bi ma jàkkaarloo waat ak yow fii ci Daaru Rahman. fii ci Daaru Rahman aussi vraiment muy seen kër nee na nit ñi mën nga luyee ah mën nga dem ultra place xaw ma fi neen luye fa ay jënd fa ay seize commande ay seize ah yi dul jeex mais tey vraiment pour nit tey dalal si leen tey mu mel ne tey kóllëre la boo xamante ni tey yéen du ko dund ak nit ñi ah, vraiment ba tey mën nañu ne axlu làmb tey en miniature tey ñoom ñoo ñëw màggal see seen seen seen seen muy seen kër. waa xam nga boo gisee chaque jour ci samay kàddu may fésal di biiral ne làmb dafa war a wala sport de manière générale dafa war a boole mais warul taaxale boo jëlee à ma droite yaa ngi jàkkaarloo ak. coach Lamine Lamine Faye ñu koo xam ci Lamine Golo di coach école de Balla Gaye nga avancé tuuti toog ko xam-xam ko ak waa parcelle Pierre Dégol nekk ci wetam di bàyyi Boy Niang per Mansour Diop di Pikine Pierre Paale mi ngi fi woon ku ko xam tamit xam ko ak rëg-rëg Pierre Djili Wade mi ngi nële ku ko xam-xam ko tamit ak waa école de lutte Fadam président Goro mi ngi fi Mor mbaay ñoom sëriñ Mbaye ñoom Xaadim Anta Seck ñi ngi fi donc làmb moo fi daje. te pourtant ñi ma la limal ñëpp bëri na ci ñoo xamante ni bokkuñu fenn foo xamante ni fa la ñu far mais tey boo fi ñëwee xàmmewoo ki dëkk fële ak ki dëkk fii loolu nag de manière générale nit sax mën ngaa bëri le mën ngaa bëri le ceeb mën ngaa bëri le yàpp mën ngaa bëri le ginaar mais man ngaa bañ a am tamit ñu la ko lekkale parce que am na loo xamante ni aussi saa bu ko yàlla dogalee rek mooy ca ña ngay àndal la mooy tey ñii fi daje def cee bëri ñoo xamante ni ci ay at. mat nañ ñu papa ñii mat nañ ñu nijaay ñii suñuy mag lañ mais mag su àndee ak xale ànd ba yàgg rek ca mag ma la parce que boo nekkee ak ay mag ñu féete la mag ba am cëru papa ci yow ba pare yaru yow mii xale bi tu es nga yaru ñu wàcce seen bopp ba tolloo ak yow di kaf ak yow di déplacé wu ndax yow ah loolu ak cant la nag ak cant la te ñoom maanaam ñoom laay maanaam mérite bi ñëpp ci ñoom lay revenir vraiment ay nit ñu baax ñu ay nitu démb suñu ay kóolare ñoo fi daje. moo tax tey sant gi ñu leen sant ñoom ci ñëw bi ñu ñëwal am na fu mu commencé mais amul foo xamante ni fa la yam donc yàlla na yàlla suñu borom def ñu yàgg di fi teewee comme nii ay nit ñu baax lañu yàlla booleel ñii ay nit ñu baax ay mag yu am valeur ay mag yoo xamante ni duñu ay mag yuy yàq diggante duñu ay mag yuy ruuxale ay gone ay mag lañ yoo xamante ni dañ lay encadrer. soo bëggee jaar ñu indiwaat la ci yoon yi vraiment di la diggal lu baax di la ko wax donc ñooñu soo amee mag ñu ñooñu ñu nekk sa wet da nga leen di ñaanal sama borom guddal seen fan ba pare yokk seen wér parce que ñoom lu ñu fi gën a yàgg ñun mu nekk suñu njariñ. Mm-hmm. am solo kon di di di di la ñaanal jàmm rek. waaw di la ko delloo rek di ko ñaanal dëgg taxawaay. waaw di ko ñaanal ñëpp bu ku baax nga moom vraiment. waaw ah man loolu daal lañ bëgg dañoo bëgg a baax de. vraiment vraiment di ñaanal ñëpp aussi Boucar képp koo xamante ni Cheikh nga jéego ñëw Touba ci màggal gi jéego boo séq yàlla na ko suñu borom def ay tiyaaba ku fi indi soxla yàlla na ko suñu borom saafara ku fi indi jàngoro yàlla na ko suñu borom saafara parce que Serigne Touba mi tax ñu koy def wax dëgg yàlla ñemewul bor mais dafa am fay fii nga ñu fekk aussi kontaan nañ ci parce que fii mooy suñu fii c'est la nuñ koy waxee fii mooy suñu suufu ay maam fii mooy suñu fief bu kar fu ñu am fii ñu ko gënal fii la lépp commencé te lépp fii lay jeexee ci kàttanu suñu borom. donc yàlla yàlla suñu borom defal ñu jàmm di ñaanal borom dëkk bi tamit nga xamante ni tey moo toog taxawaayu Cheikh Abdoulahi Mbacke boroom dër bi muy Cheikh Mouhamadul Habib yàlla na yàlla guddalu fanam di ñaanal Serigne Cheikh Abdou moom moo toog jataayu sëñ Cheikh Daa mi nekkoon suñu Serigne moom it yàlla yàlla guddal aw fanam di ñaanal Cheikh Mouhamadul Muntaxa xalifatul am lil tarixatul muridina yàlla yàlla suñu borom guddal aw fanam te wéral ay cëram noonu laa koy ñaana leen nag kër kilifa diine yëpp. di ko ñaanalee aussi waa jàngu bi suñu mbokk chrétien yi di ñaan aussi Boucar parce que Sénégal benn gaal la boo xamante ni ñun ñëpp ñoo ko bokk ñu ci biir donc nañ ñaan yàlla gaar gi teer ci jàmm mucc Boucar yàlla na réew mi def ci yàlla def jàmm ci réew mi yàlla defal ñu tawféex ak taysiir yàlla defal ñu sutura defal ñu dooley poos may ñu fanu gudd ak wér gi yaram di sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan trop comme ni ma ko waxee ci jàkkaarloo waat ak parce que site bi dafa am benn particularité parce que borom sama gayeen la buzz maa ngi koy nuyoo passage sama gayeen la dañuy toog ba guddi ñuy waxtaanee en dehors de làmb mën nañ nekk téléphone trois heures de temps bokk na ci raar nitu làmb yi nga xamante ni damay dem këram di fa lekkee raar nitu làmb boo xam ne damay dem këram di fa lekkee donc nag vraiment di ko nuyu bu baax a baax a baax di ñaan site bi li ngeen ci bëgg yéen ko xam yàlla na suñu borom def lu kawe njortam di nuyu sama champion bi nag ren moo fi manqué. non dafa wuti doole. ah jàmbaar dawul daa wuti. ah jàmbaar dawul dafa wuti doole. mel ni seen ah, ndax. wala da ngeen yokk waaw xam nga njàmbaar si yàqul cër. weer paala de na nag ah yëpp benn lañ mais biir géew moom ah jàpp na ne du yomb waaw non biir géew ba moom luñ la ca mën a wax mooy kenn ku ci nekk boo fa ñëwee ndam ngay jéem wut pour yóbbu ko wax dëgg yàlla parce que làmb moo demee noonu quoi mais nag après ñun ñëpp ñoo bokk nday ñoo bokk bàyyi sport la. benn tàkkusaan la ay question de minute la mais relation humaine bi moo ëpp doole loolu lépp mooy primé ci kaw moo tax ñoom ñaar ñëpp ay xale lañ macha allah kenn ku ci nekk da nga am objectif pour dimbala sa ay wayjur kenn ku ci nekk nag am na ko la yàlla féetale Père Paa la rëg-rëg la ko yàlla féetale ñun yàlla féetale ñu ak Boy ñang dernière décision bi ci suñu borom la nekk mais sabab bi ñoo ngi ci parce que Boy Niang mi nga xamante ni mooy acteur bi moom teel naa génn teel a dem affûter ay armam daas fanaanal parce que dañ ne guerre moom ñu ngi koy préparé ci bu jàmm amee donc ñu ngi ñaan suñu borom yóbbu ñu si bis boobu ak jàmm ak salaam. bés ba du yomb. non bis bi mënul yomb yooyu ñaari. bu tax tey Boy ñaar wuute magal gi ak Boy ñaar fi mu leen teg ak yéen fi ngeen teg magal gi waaw combat bi nag dafa am benn importance capitale ci carrière am waaw bi dafa am benn importance capitale bu mu am ci carrière am moom xam na ko moom xam na ko bu baax a baax a baax. moo tax mu nekk ci ki ñuy bëreel aussi c' est un très grand champion. am na problème ko non non c' est un grand c' très grand champion ndaanaan la ndaanaan la macha allah maa koy nuyu di nuyu ñoom Leyti ñoom Leyti di nuyu ñoom Cheikh ak ñoom Modou Sène. nit ku baax Leyti. waaw un très aussi ma gis la ak Cheikh mu mel ni aussi vraiment ay affinité relation bu bu bu bu bien ngeen di dund. wala wax ne la làmb. day boole mais du taxale léeg-léeg ñi ci ginnaaw mën nañoo bañ a comprendre mais ñun ñi nga xamante ni dañoo nekk ci au cœur de l' bu ko réeroowuñu Cheikh ku ko xam-xam koog rek rek keroog bi muy takk soxna dafa yëgit téléphone am woo ma ne ma damay takk soxna mais jégal naa la déplacement bi ñuy déggante ci ay yeneen grand layti ñuy bokk chaque vendredi di julleendoo Masaalikul Jinaan léeg-léeg ñu daje estade moo may jiite tàkkusaan donc diggante nit ku baax un très grand monsieur diggante yooyu bu gars yi séentu sax ay làmb nii deux minutes trois minutes di ko yàq non gars yi ñoo mag loolu fuufoo fuuf fuuf ñoo mag loolu Aïcha noonu la demee ñu ngi nag ah, ak le président Gora Ndoye li sama waaye di sama xarit di nit ku baax waaye aussi vraiment mun nañ ne c'est l'homme de l'ombre de Kandji ah, ngeen nekk ay wëlëre tey maa ngi lay bu baax di la ziar di leen dokkale ci bésu màggal gi. waaw Boucar maa ngi lay fay vraiment di am contentement bu baax di la nuyu di nuyu vraiment ki nga xamante ni tey moo ñu dalal muy Kandji vraiment di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm di nuyu tey ñi nga xamante ni ñoom la fi dajal muy suñu papa yi nga xamante ni ci làmb la ñu bokk nekk ak ñoom. tey ñu dajalee fii ay nit yoo xam ne ay nit yu différent lañ ndax comme ni ko ñëpp waxee rek ku xool suñu père Ndiouga xam ni parcelle la dëkk di ànd ak Modou Lo ku xool suñu père bi nga xamante ne mooy père Mansour Diop nga xam ne ku ko xam-xam ko Pikine xam ko ak Boy Niang suñu père Dégol di papaay Boy Niang mais ki nga xamante ni tey mooy suñu père Pala Diop ñëpp xam ko Pikine mais mu yor ay mbër yu dëkkul Pikine ku ci mel ni rëg-rëg nga gis ku ci mel ni suñu père Djili Wade dëkk Géejawaay ñu nekk ay kilifa yoo xamante ni tey ci làmb lañ leen fekk mais dañuy yaatal uuf ñu boole ñu seen bopp ba ñemee booloo ñun ñëpp tey ñëw dalal kànj man nag Touba yàgg naa fi ñëw vingt ans maa ngi ñëw Touba may nuy de passage Abdou Salam muy suma xarit di suma moom laa mus di dalal mais ren nag dañu changé destination ñëw fii ci Daaru Rahman dalal suñu xarit muy Kandji production mais vraiment bu kar gis naa dal bu ne mais mosuma gis dal bu ne mel ci yëg-yëg ci fonk doomu aadama ci xool doomu aadama ci toppatoo ko ci lépp loo xamante ni tey ñu ngi ko santaane ci màggal gi rek vraiment ñoom taxaw nañ ci ñi nga xamante ni ñooy ñi ñi jógee Dakar ñëw fi ñuy ñaan yàlla suñu borom doole leen jàmm mais di nuy aussi frère Kandji bi muy Abdou grand Abdou nit ku baax di nit ku social di nit ku nit ku nit ku nit ku nit nit ku nit ku nit ku humble. nit ku effacé nit ku effacé. merci euh, Boucar di nit ku effacé parce que tey gis nga yàlla mën na la dénk teraanga mais nga nekk nitu bës nekk nitu bruit nekk. xew bëgg gis leen ma bëgg nekk koo xamante ni tey balaa ngaa joxe dara ni lampi tàkk mais Abdou man maa ngi ko xam bi ñuy takk deuxième femme Kandji ci laa ko doog xam te pourtant turam dégg yàgg naa ko dégg plus de 15 ans muy nit ku effacé wu di nit ku baax di nit ku social di ku mën dara ba pare ne tekk kon ñu ngi koy ñaanal màggal gii nii yàlla nañ ko yàgg fekk fii ñu koy màggal te bu dewee déwénee yàlla na dàq ren ñuy ñaanal monde de la lutte bi yëpp yàlla suñu borom defal leen jàmm. appel bi kon rek ci jàmm ji ñu gis fii ci magu làmb yëpp. vraiment appel may lancé lii mooy lay wan ne làmb sport la buy boole mais du taxale làmb dañuy wax ni am na coow mais amul problème parce que tey boo xoolee ñi fi daje différentes personnes yi fi daje ñun ñii ñooy dajewaat ci làmb yi kon moo lay wan ne làmb kaf foo ak ree la nit ñi ci nekk nañu conscient te bokk ndey bokk baay xam ne dañuy bëri permanence wax na ko léegi ci diggante Reug Reug ak Boy Niang noonu lay amee ci diggante Modou ak Boy Niang Modou Lo Ama Baldé Modou Lo ak nañu bokk ndey bokk baay te xam ni ñooy daje ci ngénte yi ñooy daje ci dëkk yi bari ci démb Boucar ñu ngi daje fi nga xamante ni tey mooy gànjaay ci suñu monde làmb yëpp ñëw teew fa tey jii nii loolu moo lay wan ni tey foofu ñu daje ci gànjaay tey baabu la de passage ñuy jaale waale suñu frère nga xam ni mooy euh, Momo di ko masaw di ko ñaanal yàlla suñu borom may ko xolu muñ parce que fépp fu baayam tegoon tànkam teg na ko mais la preuve mooy que ni tey rek la ñuy tàggee brise de ci yoonu tubaab yi moo lay wan ne àdduna kenn xamul tey la kenn xamul suba la kon nañ koy rafetal monde de la lutte nañu bokk ndey bokk baay di waxante lu rafet di demalante di dikk leen parce que bu dëj amee ñoo fay daje bu ngénte amee ñoo fay daje ku la ni woon tey Brise de Mer bu jógee Touba di ñëw Touba bu jógee Dakar di ñëw Touba ci yoon bi lay daanu doo ko gëm kon loolu moo lay wan ne àdduna yamul tey nit ñi nañuy rafetal bokk ndey bokk baay ndax suñu sport bi ñu am tey muy làmb moo mën lii tey boo xoolee ñi fi daje te bëri nañu bëggoon a ñëw xëy na xat moo tax ñëwuñu mais fii nee naa la bu déwénee di nga fi gis lu doy waar parce que képp ku nekk ci rek Kandji am na lu mu séq ak yow ci teraanga am na lu mu ci jaar-jaar boo sañoon ci jàmm da ngay ñëw dalal ko mais xëy na dëkk bi moo xat ak taw bi mais de daal ñoo ngi koy nuyu di nuyu ay soxnaam ku ci mel ni sooda di nuyu magam bi nga xam ne moom la fi fekk di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm yàlla boole ko ak borom këram defal ko ci sutura defal ko ci njaboot gu barkeel parce que nit la koo xamante ne aussi bi ñu ko takkee indi ko ba léegi rëccuwuñ ko kër Kandji dañ fay nekk ba 2 heures du matin dañuy kaf dañuy foo dañuy ree mais mu ubbil ñu kanamam parce que xam a jigéen moom moom moom këram tey bu ñu fa ñëwoon mu ñuy changé kanam dootuñu fa ñëw mais walaay bu ñu toogee 2 jours ñëw ñu sax daf ñuy woo ku ci mel ni man ku mel ni moor Mbaay te xam nga ñun Kandji dañ ko jege mu nekk suñu frère lépp lu muy dugg wooñu Kandji ñun ëpp ñu ko juddu ëpp ñu ko xel gënuñu ko xam mais lépp lu muy dugg dina ma woo laaj ma sama xalaat loolu nag Bokar bu la ko defalee mënoo ko fay loolu moo waral ñu déplacé wu ñëw dalal ko di ko ñaanal suñu borom dolli ko sutura chantier yi mu nekk di ci yëngu muy établissement Touba Darou Rahmane yàlla gën ko màggal mu gën a yokk parce que moom lépp lu mu am rek mu ngi kiy dimbali waa doomu aadama yi de passage maa ngi nuyu suma yaay di ko ñaanal yàlla may ko na yàlla fëgg parce que moom sax màggal da daan ñëw mais ren mënul ñëw ndax tànk yi maa ngi koy ñaanal yàlla may ko wér di nuyu sumay nuyu Ndey Boro di nuyu sama fat sama deuxième femme muy Adja ko ñaanal yàlla borom defal ko jàmm mais daal de toute façon Boucar li may waxaat encore une fois sama mot de la fin mooy waa làmb nañu bokk ndey nañu bokk baay tey nii ñu dajee nii kër Euh, kanji ci màggal bu ko bu gàmmu gaa noonu la ñuy dajee kër Aziz noonu la ñuy dajee feneen noonu la ñuy dajee feneen kon nañu bokk ndey bokk baay ñaan yàlla Sénégal yàlla na fi yàlla dolli jàmm di ñaan sëñ Muntaxa yàlla na ko fi yàlla yàggal ba yàlla yokk ay fanam ba liggéey bi nga xamante ni moom la ko Sëriñ Tuubaa maam ba sant mu def ko ni mu ko bëggee di ñaan yàlla suñu borom yàlla bu mu doon suñu mujjeenteelu màggal di ñaan ñu fekk ko ay déwén yu bëri merci. ñu ngi nag ah, ak tam tam bu booñaa tam maa ngi lay bëgg. maa ngi ci loo ne. maa ngi leen sant yàlla bu baax a baax waaw di nuyu télé bi Lutte TV di nuyu seen mbokk internet yëpp ñu koy seetaan à travers Lutte TV di nuyu di la nuyu Boucar incha allah. tam bu booña euh, daaw nag daaka naa ñoo àndoon dem jumaa ja ah yóbbu ndox yeeg yooyu noonu ren nag malheureusement champion bu wute ko euh, santiment bi euh, est-ce climat bi day niroog bu fi bu fi nekkee. non non du niroo présence bi ak absence bi niroowul bon. moom la fekkee mu nekk fii dafa muy peser sa pèse lourd mais comme ni la ko yàlla bëggee parce que circonstance moo tax mu dem waaw parce que dafa liggéey rek mais déwén incha allah mooy daax te dafa am lu nga xamante ni nii mooy force majeure bi mooy sa famille bi nga xam moo reposé wu teewal nañ ko fi kon moom day mel ni mi ngi fi rek ba bi ñu ngi firndale kóllëre bi ba tey incha allah rabi loolu moo tax mais nag absence bi moom ça nous a manqué parce que ñii ñëpp wax dëgg suñu fi ñëwee di màggal ànd ak moom. suñu fierté la parce que c'est notre champion mu Boy Niang 2 suñu waay la suñu lépp la ay waay fii xal sa xol ah original neexal bu te na gu original pur jus de fruits Sénégal ka fay kan ngi yegsi na fay say facture moo ci gën a gaaw ngir ñoŋal seen dundin bés bu ne Eric Favre Nation ubbi na ay buntam fii ci Sénégal ak ay large gamme de produits yu wër àdduna wërngal këpp ñu saytu ko ci laboratoire français yi gën a mag moo xam da nga bëgg a yokk sa masse wala dindi sa graisse mbaa sax nga bëgg a yokk sa cawarte yokk sa ngóora ci sa néegu sëy taw leen gaaw consulter suñu site web www.ericfavre-nation.sn wala nga woote ci suñu numéro commercial bi 78 689 33 98 ngi fii ci Dakar Olympique Club ci yoonu corniche ouest bi